Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk déglu kat nag jàmm ba léegi coow laa ngi nekku nag Macky Sall ndax dina wàññi am déet li am ba des daal. njiitu réew mi daal dinay xamal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko jege ne moom li mu dig askanu réewum Sénégal ci ni bàcce ne dina ko amalee maanaam daal dina fexe nag ba ñu wàññi mandaam bi jëlee ko ci juróom-ñaari at indi ko ci juróomi at wante coglekaay bii di mi ngi ñuy xamal ne coow laa ngi ne kur waral moom mooy ne Macky Sall barke de moo njaay la mu daal di xamle mooy ne même su fekkente ne sax bëgg na nag ñu daal di wàññi xamul nag ci ban yoon lañ ko fas yéene jaaralee moom nee nak nag bu jotee daal ñi nga xam ne nag seen xam-xam dafa màcc ci wàll gi dinañ ko wax ci yan yoon la aujoglekaay bii di Sud Quotidien ne loolu nag tax na ba ñi ñooy ci wàllu politique ak tamit ñi nga ne ay lañu ñoom it daal di indi coow ci ay di Sud Quotidien mi nekk ci parti moom la mu daal di gëm moom mooy ne Macky Sall moom kay fu mu nekk nii dafa bëgg rek dëddu li nga xam ne yoon askanu réewum Sénégal wante moom moo gën a xam ne su fekkente ne daal da nga bëgg a indi coppite ci wàllu constitution bi xam nga ban yoon nga war a mën a jaar ñi nga xam ne nag seen xam-xam dafa màcc ci wàllu yoon ku ci mel ni professeur Ismaïla Madior Fall ak tamit ki nga xam ne de moom mooy professeur Babacar Gueye Pape Demba Sy ñoom de la ñu xamle moom mooy ki nga xam ne de miir yi ci wàllu référendum ngir ndax ñu wàññi mandaam bi am déet teew coglekaay bii di ci quotidien ma ngi ca yokk di xamle ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ay spécialiste ñoom ne li ni mel la ñu mës a wax léegi kay nañu wax ne kii di Macky Sall ak koppar gi nga xam ne nag moom la fas yéene nag dugal ngir war fee amal ab référendum loolu nag moom moo tax ba fu mu nekk ni daal mu bëgg dellu ginnaaw ci wàll gi ni mel li ambare daal moom mooy ne ba léegi moom xamaguñu nag njiitu réew mi naka la fas yéene def ndax daf koy jaarale ca assemblée nationale wàllu référendum ñu des ba léegi a njiitu réew bi di Macky Sall mi nga xam ne ba léegi ma ngay wéyal tukki nemmeeku nga muy amal fële nga xam ne de moom mooy ca Sine Saloum fële nga xam bi di Le Soleil mi foofu nga xam ne nag moom mooy ca Kaolack cuglikaay bi di Rewmi Quotidien mi ngi ñuy xamal normal ne ginnaw bañu dal di wéxé dal né université Sin Saloum dañu ko nar tuddé Maulana Cheikh Ibrahima Niass am na ñoo xam ne nag yëkkati nañu di ngagn li ni mel ñu dal di ci ragné njabootu Haj Abdul Hamid Kan nak té ñom ñay xamlé ci biir cuglikaay bi di xew mi quotidien né touru université bobu dé ki nga xamné nak mom moy El Haj Abdul Hamid Kan lañu ko warona jox xeex bu tar moom am ci digënté wa APR ak wa parti socialiste té xex bobu sax gëna ci natar ginnaw nak ba soxna soxna yu nekk ci biir APR te Mariam Badiane jiite leen xamalé dal ne ñoom fu mu nekk ni lañu bëgg mom moy ne ki euh, di euh, Macky Sall génne wa parti socialiste ci biir coalition bi ak limite fépp fo xamné dañu ko bokk ci biir gouvernement bi ndax ñoom lañu gëm mom moy dal né ñi nga xamné ne ñoom ñooy socialiste yi sa su ne dañuy attaquer ñi nga xamné ne ñoom ñooy waa APR maître Abdoulaye Wade mom dina wëy di tok ci bop parti démocratique sénégalais ba keroog nak ñu fi amal ay élection kii di Mayor Faye moko xamlé won demb ci biir la cuulekaay bi di l'observateur tey jii cuulekaay bi di le quotidien la mu gis mom moy dal ne dafa mel nii ne ki di maître Abdoulaye wad mom de paré wul ngir denk nak partem bobu dal ñi nga xamne ne ñom ñoy ay ndaw yu nekk ci biir PDS ndax te gis nañu nak ku ci mel ni Modou Diagne Fada waxon na ne mom dal paré na ngir ñu dal di koy dénk PDS wante maître Abdoulaye wad dafa melni nak ne andul ci li ni mel ñu desandi ba légui ak maître Abdoulaye wad ndax Wade ndaxte cuulekaay bi di enquête mi ngi ñi xamal ni légui de mom ki di Cheikh Béthio Thioune dal dina koy wan ginnaw mom moom ci bopom sax ma ngay fessel li ni mel ci biir récolikaay bi di l'observateur ndaxte daal dinay xamle ne diggante mom ak maître Abdoulaye Wade daal diggante bobu mom jeexna tak ci biir récolikaay bi di la témoin suñu natango yi ne kon Béthio won na ginnaw ki nga xam nak mom moy maître Abdoulaye Wade légui kay ke mu bëgg a lëngool nag moom mooy Macky Sall ci récolikaay bi di la témoin mi ngi ñi xamal ne Béthio sax daal dinay invité Macky Sall ci ay tiant yi nga xam ne daal daf koy amal aljuma bi ñu euh, dëgmal ñu wax ak récolikaay bi di grand place Dias ci soxna si ñu gën ko xam ci turu aram moom mi nga xam ne nag moom moo témoigné woon wax daal ni ñaari ndaw ya nekk ca Colobane ñoom ñoo faatoon bakkenu policier bi di Fodé Ndiaye ba taxoon nag euh, ñaari ndaw yooyu ñu daal di leen tëj ci lu tolloog ñaar fukki atu kaso tey jii cuglikaay bii di grand place mi ngi ñuy xamal ne aram sow moomu de nekkite yoo moom de njuuj njaaj lay faral di def ndax ndaxte jàpp nañu ko nag fa li nga xam ne moom mooy ca yoof mu daal di joxe sax ubbil benn boutiquier moom moomu nag nga xam ne nag moom mooy Aram Sow wala boog Ndey Soxna Diouf cuglikaay bi di Grand Place mi ngi ñuy xamal ni léegi nag ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca Colobane la ñu bëgg moom mooy ñu xoolaat nag seen procès fexe nag ba daal di leen génnee ca kaso ga ñu leen tëj te kii nga xam ne nag tey jii moom moo tax ñu tëj leen de moom dafa tàqalikoo ak sagoom raax ci dolli sax yàgg nañu kaa tëj ci biir kaso ñu koy jeexalee ak wàllu lamb cuglikaay bii di sunu lamb woon waa TNT cuglikaay bi di sunu lam mi ngi ñuy xamal ne ci fukki fan ci weeru mai lañ ko fas yéene amal ñaari combat yañ cey xaar mi ngi nar a nekk ci diggante Tapha Tine ak Ama Zoss Gouye Gui li moo nekkoon mbox de lugat yi li gën a fës ci biir cuglikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bés ak